seetaan naa vidéo bi kontaan naa trop trop macha allah li nga fi wax lépp leer na te lépp njariñ la yàqoole da ngay defar rek kon yal na yàlla la fa cat gën a wéral cër yi gën a leeral baat bi ci barke Seydina Mohamed loolu nga wax moom dëgg la moom parce que nit ku ne li muy def war nañ sóoraale ëllëg. ndax àdduna dafa gudd tànk ndax Mariam li tax ñu koy xas noonu fu mu toll comme ni mu doon dundee ak la mais Lalla moom ni mu def moom baaxul parce que man Lalla noonu mu dundee man dundee naa ko sama borom ko def na ko indi na sama ab benn kiyam benn soxnaam benn kiyam daal benn gelam indi ko si kër gi ba ma gis ko mu dikk sama néeg ma entré ko jour boobu ñun ñoo bokk yéen ñëpp ma xam ne kii sama borom ko da koy bëgg mais dara. dama kaf moom réeg moom ba mu ñibbi ma xool li ma xam ne moom laa am ma yëkkati ko jox ko ko ba si ne yàlla suñu borom dogalal si diggante ñoom ñaar ba si ne ñëw na ci kër gi fekk si ma waaye maa ngi moom jàmm ak salaam rek lañ séq ñooy bokkule yére xam naa ay mbokkam duggante nan samay mbokk duggante samay mbokk dañ koy teral moom tam ay mbokkam dañ may teral lépp nag aaw bi moom moo ko war a def parce que moom moo nekk ci kër gi moo jiitu danga naa dañ naan aaw moo gën a xam xolub jëkkër mais dëgg la mais aaw bu ne war ngaa xam sa jëkkër tam li mu bëgg ak li mu bëggul te ku a am way woo xam ëllëg si biir fu ñu ko waxee si say doom doo doo doo rus daal say doom du rus doo rus parce que laala ni mu def noonu dara rafet si ëllëg nettali bu ñaaw lay doon ndax moom dof na fi mi ngi jaxase li gën a bon mi ngi yàq der mi ngi sos loo xam ne amul mais loolu lépp seex day dem nag ba comprendre bis bu ko seex xamee nag moom moom la moom mooy dem problème parce que seex day dem ba dootu ko wóolootu même bu ko waxee dëgg sax seex du ko gëm ndax lim waxoon noonu te amul moo tax nit ku ne lu bari war na koy sóoraale daal. nit ku lu bari war na koy sooyaa ndax mujjee jërul loolu daal man de wax dëgg yàlla comme noonu def nañ ma ko waaye nag def ma ko benn problème ndax àdduna loo def problème ne mu nekk problème mais loo oyofal mu oyofal moo tax wax dëgg yàlla ndam rek laa si jëlee daal maa ngi si sant yàlla maa ngi sama wujju daal ñun daal ñu si jàmm bu baax a baax a baax kon nag laal la wax dëgg yàlla war naa jàppale aaw yi rafetal man de wax dëgg yàlla aaw waaye li ñu def moom rafetul ma ko ñaawal naa ko trop trop wax dëgg yàlla dara rafetul si jërë ngeen jëf leen sant di leen gërëm yàlla ngeen fi yàgg lool te wér ci barke Seydina Muhammad jërë ngeen jëf. maaleykum waa série maîtresse maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di leen wax ne li ngeen di def vraiment neex na neex na trop trop liggéey bi tamit set na wax dëgg yàlla neex na trop liggéey bi set na Marème Marème di ma rey yow yaa may daaneel ma rey ma rey rek waaye nag yéen yow lan la lan la mii commencement ni mu géwe ak léegi fi daanu see du sax benn ndax commencement lan la daf doon woote di grande dame dëgg dara safu ko téye naa sama jëkkër téye jëkkër boobu ba léegi mën na ko continuer mais dafa mujjee bàyyi loxoom. mais man lum daal laal la xamatuma sax du may nuru ci film bi ban nan la ci tooge daal mais Marème mi ngi koy woo ci jàmm di ko woo pour jàmm mu koy wuyu ci Irak Irak ah Marème neexuta woo ci Irak de Marème di ko woo ci Irak Irak moom di la ciy wuy si ndax Marème moom bul sonn wax dëgg yàlla bul sonn Marème rek ci xale ak a <laughs> ba pare waxuma sax loolu mu dem ni seex moom moom da ko woo saaga ko ah Lalla nag yaa ngi bëgg ëppal wax dëgg yàlla nag Lalla lu metti metti waxal dëgg yow yow yow la Marème yóbbu na sa fit bi di yu man Marème bis bu sëy see man xaw ma foo jëm man sama problème bis sëy see xaw ma foo xam nga lan laa bëgg nag ci film bi waa série maîtresse dama bëgg Marème sëyi ci te avant moo sëyi mu jël ëmb loolu laa bëgg. waa loolu laa bëgg du leen jàmm ak salaam waa baax na li ngeen def neex na trop léeg-léeg damay déglu commentaire yi ñu naan Mariam dafa vulgaire dafa def nii def bu leen leen déglu da ngeen di dem kenn du leen téye li ngeen def neex na nit ñi ñoo ko bëgg senegal gépp a ngi koy seetaan ak Europe yëpp ñun ñu ne fii waa Europe ñu ngi koy seetaan bu baax sax ñu ngi koy seetaan bu baax vraiment neex na ca kaw ca kanam rek jàpp leen te bàyyi bu leen déglu commentaire yi. maa ngi du ngi di di wax ci film bi nii maîtresse d'un homme marié ñi wax nañ ko censuré ñoom lañ leen censuré moo gën <laughs> nañu may jàmm ñoom bu ñu seetaanoon nañu bàyyi ni ñu seetaan commentaire neexal seen xol trop surtout ñun waa Europe yi dañuy doon dund stress bu du jeex te léegi ñun ñoo koy enjoy bu baax a baax a baax a baax nañ ñu sarax rek nañ ñu sarax rek nañ ñu dimbali ñoom bu bu ñu bëgguñu bu ko seen ay doom seetaan. bu ko seen ay seet seetaan ñu bàyyi ñu ñu seetaan fot nañ ñu ta rek wéetaay bi ñu nekkee bi ñu nekkee rek dafa doy ñu indi suñu film ñi enjoy di ci gis seen bopp ñiy dund ko xam nga di ko wax di ko gis di ko dund nag ñu bëgg ñu koo daga nañu sarax rek nañu ni ma ñoom bu ñu seetaan nañu bàyyi ku bëgg rek nga seetaan ku bëggul nga sappe feneen te lay bari nañu ngeen baal ma allo salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen seet di leen wax dama bëggoon wax rek commentaire tuuti rek ci film bi comme Lalla Lalla ñun fi ñu ko yaakaare woon ak fi mu ñëwee ñun d'accord ñu ak moom ndax nit da ngay am personnalité lu ñëw rek nga mën ko dékk mais ni muy doxalee vraiment ñun neexuñu ndax dafa bëgg def ni comme moom mooy góor moom mooy jigéen ci biir kër gi. te léegi du moom kese dafa am ku mu partagé kër gi kon nag moom war na dox rolam ba mu mat mais li mu moomu mu bàyyi ko Mariam waaw te wax dëgg dafay baax ndax su fekkee ne danga def lu dul dëgg yàgg-yàgg dafay feeñ te loolu yëpp da koy yàqal te kenn ku si nekk yaa ngi ci gis sa bopp ci biir film bi kenn ku si nekk mën nga ci defaru tamit ndax xam nga erreur yi ngay def ak boo bëggee ñu farak yow li ngay def ba ñu farak yow mën nga soos mën nga wax lu la neex pour ñu farak yow mais boo wéetee war nga tiit war nga rus te yooyu muy def nag mën na ko bàyyi te ñu jéem a xam ne rek ne que wujju moom bokk bokk bokk wërsëg la rek kenn ku si nekk mën nga toog sa place nga liggéey te yàlla rek tax na defaraat toogaayam daal man daal loolu laa koy wax yaayu Cheikh nag moom tamit moom lu yàqu ci kër gi rek moom moo ko yàq ndax soo féetee fenn ba ñëpp xam ne danga féete fenn gaa mënul ñàkk waaye nag na nga yemale ndax sa doom moom moo bëgg takk indi kon nag yemaleel donte mënul tolloo sax waaye fexee rek ba kenn du la sikk waaye moom dimbaliwul Cheikh dimbaliwu ko benn yoon te li muy def rafetul te ñu bari ñu ngi dund loolu ñu bari ñu ngi koy dund ñu bari bàyyi nañ seen jabar seen yaay a tax te loolu rafetul jekkul te seen doom ñi ngi toppaat seen jabar yi pour amaat leen mais yàq na lu bari maire tamit daal nañ xoolaat seen toogaay jërëjëf. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di bu baax a baax di leen delloo ziare waa euh, dama bëggoon euh, am lu ma wax ci série bi tuuti rek xam nga waroon na fekk sax ma wax ko bi yàgg mais am lu ma tënkoon ma tax waaye série bi moom. neex na trop waaye Lalla moom mais Lalla wax dégg yàlla Lalla moom mi ngi bëgg a ëppal parce que Lalla Marème mi ngi ut jàmm fu mu toll mi ngi ut jàmm ba ci dem na woo ko di ko jéggaloo mais Lalla gisul yooyu yëpp Lalla daal moom moo bëggul jàmm comme li Marème wax rek moom moo bëggul jàmm lu ne nag mi ngi koy def lu ne mi ngi koy def mais seex waroon naa def balaa réagir dara waroon naa teey waaw ndaxte Lalla waru koo wax rek mu jékki-jékki rek ñëw ci Marème di ko attaqué loolu moom c'est normal ba pare tamit euh, la kii Marème su ma doon may mooma woo naa ko nii benn yoon pour bëgg jàmm Lalla bañ mu dem sosol ko ne ko neen da koo saaga euh, su ma nag tey laa koy mu a woo tey laa koy mujjee woo waaw su ma doon Marème du ma lijjantee di sax lu jëm ci la c'est comme que nit ki dem na ba bañ na ba lay sosal moom ah wóorut nga téye sa bopp daal man daal loolu daal laa laa gis te nag seex maa ngi koy wax benn affaire mu def attention ndànk ci ñaari jabaram yi toog yor bëtam kenn ku ne mu analyser la xool la bu baax tey bañ a gaaw a réagir waaw bu deful ndànk rek ñaari soxnaam yi moom mooy loolu bu deful ndànk rek moom góor moom naa na def ndànk rek soo yore ñaari jabar defal ndànk rek bu gaaw a ci kenn. waaw beneen bi mooy eh, nee na yaayam feebar na ndax saaga bi ko mareem saaga mu dem tëdd hôpital bu fekkee ne eh, loolu mu wax am na yaayu Cheikh dafa feebar àq boobu laala la parce que laala mm, moom mareem duñ wax téléphone barewul sax mu coupé ne ko bu ma woote mu coupé gis nga bu fekkee li mu wax dëgg ne yaayam dafa feebar àq boobu laalaa ko yore lu ci mën di doon rek laala la xëy na nit ñi ñu xamagul léegi ñoom. duñ ko xamagoon léegi mais ci kanam lañ koy xamee waaw lu ci man di doon rek ci lu dal yaayam rek na xam ne laala la Marème moom yoonam nekku ci waaw moom jaam la doon ut utu ko kuppee na dagg na ko fa su ma doon Marème ma nag te lay mujjee woo laala tey laa ko njëkk a woo tey laa ko mujjee woo waaw te Cheikh nag mu def ndànk ci ñaari jabaram yi def te tee. asalaamaaleykum kenn ku si nekk maa ngi nuyu ak sa sant lii de moom rafetlu naa ko trop trop yàlla na. ku danga nit danga commentaire wax dëgg yàlla li nga ci gis sa yëg-yëg torop neex na ma torop man kii bi rek laa koy seetaan ci YouTube rek man laay seetaane parce que mareem ni affaire bi dafa neex mais lii bu ndajaloo kenn ku nekk sa ajo ban pare kenn ku nekk waaw bu ndajalee kenn ku nekk sa audio ba pare ban pare dangay dégg ñi nga xam si ne dañuy waxee noo xam si ne aka neexoon daal mu wax nga tontu mu tontu ndax ñu bëri Jalika affaire bi bett na ko bett na ko wallaahi Jalika affaire bi bettu ko Jalika suur bi muy jëlee ay bagages di ñibbi xarit bi di ko jàppale bagaas yi gis na la xarit bi doon réagir ci néeg bi moom jël na fàtte bi di ko xool Jalika tourné gis affaire bi mais moom dafa nekk nit koo xam si ne sans rëkk joxañ la il faut que da koy joxañ benn exemple mu soog a réagir ba xel mi soog a kii lii nii bettu ko am na ko naan. nit ki day am na muy doxale noo xamante si ne bu méttee say jëru ko am bëgg ay say yoo xam si ne métti woon na ba nga xamante man daal bi daal kii dama daal aka ni waxoon ñi waxee mel noonu daal ñi wax ñuy dee wax dëgg yàlla moom moom rafet na rafet na trop lii moom yàlla naa ko trop xalaat kii def lii moom kii def xalaat bii moom rafetlu naa ko lool jërëjëf moom rafet na asalaamaaleykum waa maîtresse d'un marié man maîtresse d'un marié nu ma ko gisee Marème ni mu sonnee ci liyam ci film bi ça veut que Marème xam nga lan moo ko sonal ni mu njëkkee commencé seex looloo ko sonal te affaire wujj boo ciy dugg dangay xool sa bopp xoolaat sa bopp bu baax ba ëllëg boo ci duggee kenn du la yab wala kenn du am lum la xasee te jigéen tamit lu ko xasloo dafa yomb marem fu mu juumee ci premier liyam foofu la juumee moom daa waroon a fonk boppam woon seex moom mooy kan ndax instant bi damaa gis ne seex bëgg na marem mais tegu ko fim ko war a teg parce que xam nga lu tax dafa yomb si moom moo tax gis nga góor boo yombee ci moom rek mu lii la mu mu mu mu sonal la daal ça veut dire du ko teg fu mu ko war a teg bu baax ni mu tegee la du ko jàppee noonu te après la ñuy xamele xame xame fin film bi ni mu jàppee laa du ko mos jàppee Marème ndax Marème ni mu réal ni mu ni mu commencé ak moom looloo looloo rafetul moo tax ndax Marème dafa commencé dem ba ci biir kër dem këram tëdd ak moom def ak moom lu ne góor bu la xamalee te takkugu la rek foofu la lay foofu la yabeel ba commencé foofu la ay mbokkam tamit foofu la laala amee lu ko xasee foofu la yaay si amee lu mu ko xasee moom daal instant bi li ma gis ne moom mooy sëy na muñ xëy na lépp après résultat yi dina feeñ dina dina changé xëy na loolu moo ci sama xalaat te loolu Cheikh tamit Cheikh ni mu comporté yoon bi ak marem góor doo nekk benn nopp buñ la waxee di boo yoree ñaari jabar danga xam ne ñaari jabar laa yore boo kiy wax lii rek nga gëm lii wala wax la lee nga gëm kooku góor bu yoree ñaari jabar danga xam ne ñaari jabar nga yore boo yoree ñaari jabar danga xam ne man mii ñaari jabar laa yore nga zuye nga lii nii nga comporté comportement kilifa nga xam na nga te yore ñaari jabar yombul ndax góor ñi am na ñoo xam ne tey benn nopp lañ saaru seex yi benn nopp lañ buñ la waxee dee nga gëm ko mun na nekk meer ba bu dee meer bi dafa feebar mun na nekk moom ak daal ñoo ñoo lii ni ñoo complot pour mare sëyam tas yooyu yëpp mun na ci am man loolu loolu ma si sama xalaat. salaamaaleykum waa maîtresse ziyaare naa leen. di bëgg ci série bi lool neex na lool nag waa bari nañu mu neex torop te macha allah bari na lu yéete loo xam ne mu ngi ci lu am ci société bi rek moom ngeen joué muy rôle bi nga xam moom la laala def def Mariam sosal ko ci jëkkëram te léegi loolu rek moo am ci sëyu ko ji ngay gis ku nekk jëkkëram ngay wut jàmm moom mu lay jaxase sa jëkkër tout le temps mu nekk loo xam ni lu ma marqué la daal parce que dafa am fu mu ma ci dund. mais ma ñëw ci Jalika rek nag pour man Jalika affaire bi waru ko mën a metti copine mu ngi génn ak jëkkëram Jalika bàyyi na jëkkëram yàlla suñ borom may na ko keneen ko gën jëkkëram am na keneen mais copinam su bëggee jëkkëram loolu amul problème yow bëggatoo keneen bëgg na man de pour man man daal sama àdduna noonu la man bëggatu ma bëgg nga yow demal man mi bëggul ma taxaw man daal loolu laa jàpp pour man loolu amul gaañ daal c'est que nag sénégalais moo bari ndax bëggoo ba pare ni keneen du bëgg loolu moo mënul nekk moom bëggatul gis na keneen xaritam bëgg na na baay xaritam mu continuer moom yàlla may na ko macha allah ku baax ku koy toppatoo ne jàpp ci kooku loolu daal pour mën a amul gaañ. salaamaaleykum wa rahmatulah maa leen siyaare bu baax maa ngi békkee seen série bi maîtresse di bu neex lool tam solo ma koy siifal temps mu am solo lool waaye man maa ngi wax ci ñaari côté rek. benn euh, lal la man jàpp naa ne moom lañ jox exemple mu doon mu wane fi naan jigéen bu baax kon war naa mën a réagir neen biñ ko takkali wu ñu nii quoi waaw parce que nag man jàpp naa ne warut mën a fabriquer ay ay wax yoo xam ne pour jaxase kee ak borom këram la wartoona war a mën def lool ma fa doon tuddee rek dalal rakkam doon exemple ci moom bu ko defee nag boobaa ndaw si dana dana dana jàngat dana am keesa moom lu baree bare waaye bu doxalee ndaw si day gën a am fit gën a am fu mu bu ndaw si demee ba di ko wocc jàmm ko mën a wuy si jàmm waaw foofu daal laal la mu ngi defi jox moom benn carton rouge moom waaw ñu ngi jox baat benn carton rouge moom boobu moom kontaan ci quoi am nga mën a réagir neneen di wax ci diggante eh, Jalika ak xaritam boobu man xaritam bi laay jox benn tool parce que ndaw si sa mère am la di sa xarit dee ba sëy waa ji ba dem ba ne ci ay jafe-jafe ba génn ci loolu na naa waroon na laa a xam ne kii boo duggee yàgg yàgg la ndax jàpp naa ne ni mu def ni mu def doomu nday bi da koy def ànk moom da koy defaat waa ji rafetlu na émission euh, kii lool nag série bi neex na lool. ñu ngi leen di siyaare waaye yéen a ngi am jàmm man nag maa ngi wootee fii Italie franchement di rafetlu film bi film neex na. dëgg la nag Sénégal moom daa doon dëkk boo xam ne def dara mu jàll daa jafe ndax se ñu nu jikko woo daal wante dara nekk si rafet na franchement fi ñu nekk moom rek la ñuy suivre franchement parle mm-hmm, dëgg yàlla xanaa kay di ñëw ci kaawo kii rek. Mm, euh, di ñëw si ka Jalika rek wax dëgg yàlla Jalika moom franchement loolu waru ko naqari ndax amaana moo ñaan baat pour man lool loolu noonu daal waru ko naqari ndax xarit moom loolu loolu pour man yàgg naa am te yàgg naa am daal nit euh, nga am sa xarit mu mu tasaak sa xarit euh, jëkkat ja wëlbatiku takk euh, takk tegu quoi xarit bi loolu moom yàgg na am franchement te man gis naa ko quoi loolu nag pour man waru koo naqari ndax Jalika dafa am lu mu doon incarné daal dëgg yàlla ba tax ne loolu daal rafetlu moo ko daal. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu waa Rafael TV nuyu naa leen ziar leen bare bare bare maa bëggoon a participer ci euh, ku ci mel joor joor moom lim def franchement neex ma ndax waaye nag jële ko jarul muy réccu ndax maanaam fekkoon sa ne jëkkër dafa nekk góor boo xamante ne si ne góor bu baax la sax nga ne jar na muy réccu mais moom mooy loolu koo xamante ne am bànneex daanaka jarul sax nga regretter lan moo tax nga divorcé jaru ko xanaa kay dafa metti rek sa xarit sa meilleur ami di la trahir te Cheikh Diagne tamit nekk na góor benn nopp trop góor benn nopp moom moo yës ci àddina li la koy wax rek nga mën a gëm mais su ma sañoon daal mu déglu ma reem da ciy am solo trop trop sax mais Lalla moom franchement dëgg yàlla moom li meloon ci film bi commencement ni ma neexee woon waaw ay salañ salañ ñoom ñoom seen yooyu noonu instant yi mu neexetu ma noonu dëgg fa yàlla waaw. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen baal àq leen baal àq waaw série bi neex na ñun dañ koy seetaan dañ koy suivre ñu ngi ba Nouakchott dañ koy suivre neex na trop waaye moom fi mu toll nii instant bii instant bi moom ma euh, laal la ñuy blâmer woon Lalla moom moom moo xaw a jalgati tuuti moom Marème moom def dara Cheikh moom kon ni ngeen wax rek daa xaw a yor dafa xaw a yor jikkoy benn góoru benn jabar loolu la. dafa yor jikko góoru benn jabar loolu lay defe waaye bu dee marème moom marème deful dara marème amul benn problème wax dëgg yàlla léegi jàmm rek lay wër laala kay moo moo déconné léegi. waaw salaamaaleykum waa Marodi na nangeen def mbay na am jàmm bu baax euh, ça va bien waa kii de moom waa Italie la waa di suivre film bi neex na macha allah yéen ngi si yeete. xam nga yéen a ngi teg si yoon te yéen a ngi dindi suñu stress waaw macha allah dañu remercier bu baax a baax a baax si film bi ngeen ñu andil mais dañoo mere laal nag ñun aaway ah mere nañu laal la trop parce que laal la nii mu doxalee moom waa rafetul parce que mereem oyof na oyofam daal ba woo ko. waaw la moindre des choses moo koo déglu xam nga wax ak moom après lu muy def mu doog koo def xam nga mais du ko du kii Marème ba pare du takkal Marème du ko woo pare mu takkal ko xam nga. waxal ko wax joo xamante ni rafetul daal takk jaxase ko jëkkëram jaxase ko lool moom ñaaw na trop trop ba si kanamu yàlla maanaam daa ah, laala daa mu ñuy rusloo mu mu ñuy rusloo laa ñun ñun aawa yi waaw rus nañ ci trop waaw. waa Euh, seen théâtre bi am na solo lool lool lool xam naa man moom samay fansi si théâtre bi mooy euh, Tafa ak Racky mais rek nag dafa juum quoi Racky euh, dafay dëgg li mu waxante woon ak Tafa ak fi ko Tafa jëlee wurtoon di nëbbante ak moom ba lii di ko dal mais Tafa na ko comprendre quoi si rakki bëgg na ko xëy na erreur la woon rek en tout cas daal yi fi neex na lalla itam lalla na comprendre Euh, Cheikh léegi ji ma accepté Jalika euh, non non Mariam Diallo lay wax ñaareelam bi na ko ji ma euh, assumé xam ne rek ndogal yàlla la nañ na bàyyi yëpp mu jàll comme moom ci première bi moo signé woon boo may takk ñaar bu ñett léegi na assumé responsabilité am ji ma say normal bàyyi caaxaan yi su ko defee Mariam Diallo tamit moom itam mu wàññi xëtër bi mu amee. yenn saa yi day day demee force moo tax chaque jour rek doon ci dëggam lay nekk mais boo xam dafay xaw dafay xaw a ëpp daal voilà Cheikh itam na nekk responsable nag na ji ma euh, ñemee affaire yi bañ a bu dekkee feeñee xaw a faible bu ñëwee fi faible loolu moom itam du jaxase këram moom Cheikh ci la bokk en tout cas daal ñu ngi koy topp neex na lool lool lool kontaan nañ ci yéen. asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar ku ne ci turam ak ci santam da jox ziar ku ci ne di ko jox sa wàccuwaay di naan nag Lalla moom juum na Lalla moom juum na aawo laa de piir waaye Lalla moom juum na warul woon Marème woo ko ngir juboo waxtaan ak moom ci jàmm mu dem di ko sosal di ko naan Marème saaga nag saaga na ma ak saaga sa yaay ak yekk na ma lu nekk te lu mu wax noonu alors que dara amu ci. xam nga ne lu mu sos noonu rek mair bi nga xam ne daa bañ mare àllum neen bu ko déggee moom dina ko gën a bañ loolu moom ma ko tey d'accorduma ko suba aaw laa nag mais d'accorduma ko bu fekkoon da koo saaga ba mu koy ñëpp ñu ngi toog di seetaan bon donc dinañ mën a dégg saaga bi man moom kontaanuma ci Lalla aaw laa nag aaw piis waaye kontaanuma ci moom benn yoon Lalla moom Lalla moom kontaanuma ci moom benn yoon waaw wujj moom jarul yenn jarul diisal day mel ni moom sax aaw yi tàppit la te aaw yi namuñu dara it ah. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di joxe sama contribution waa di wax Marème ne ko Marème nag dafa war a am fulla tuuti ndax man mii di waxante yow aawala waaye nag. mareem amul fulla te bu fekkee nit ki da ngay wut jàmm te wutul jàmm yaa ngi ka woo àdduna yëpp xam na ne woo nga ka ah mu lay sosal si lu dul dara ama sa fulla am sa fayda mat sa place sëkk nanu xante dëgg yaa nga sa kër toog mu nga sa këram toog matal sa palaas waaw su ma doon yow la sax nag bu dëgg rek di dëgg ba Cheikh Diagne demee sa juru ay dem fa reeri su ma doon yow dem këram ndax li nga def deli la waroo woon dem këram nit dangay mat dangay mat sëkk xaar sa góor ba mu ñëw du dëgg nga toog mu toog nga wax la nga kay wax waaye nag nga dem fekk ji sa kër jaamur du dëgg du yoon waaw man nag mareem ñaareel nga nag waaye man yow laa faral te man aawalaa yow laa faral xam nga lu tax laa faral mooy matal sa place rek sëkk ndax laal la moom rakkaaju na rakkaaju goo xamante ne dem na ba aawee ah nawlootu <laughs> nga matal sa place merci beaucoup loolu laa amoon lu ma leen di wax ba beneen yoon. maaleykum wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant di leen ñaanal jàmm yàlla wàcc ci yéen xéewal ah seen lii ngeen ubbi nii seen doon ay télé télé ci Sénégal ba ñëpp xaj ci ak ay rajo yu bari ndax wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéeyal askan bi wax dëgg yàlla ah macha allah yal na la yàlla defal jàmm yéen ñëpp waa Lu Xew TV waa Lalla carton rouge Lalla jeeg aawa buru këram dafa war a yor pusoom di ñaw aawa mooy ndey te aawa waru di sos waru di créer histoire ndax aawa mooy yaayi kër gi daal ndax euh, lu yàqu ci kër gi rek moom moo ko war a defar léegi feebar feebaru nga sottiwul dugal nga ci sa doom sottiwul xam nga ne Cheikh dafa bëgg yaayam ba bëgg dee nga dem di ko dugal ci jeu bi léegi yaayam mu dugg ci jeu bi moom tamit ci mag mag du def yenn yi mag dangay ngay moytu mag am nga fooy toll da jaamu yàlla di defar kër di defar ay xale sëy bi am na ba pare kenn mënatu ci dara. lu ko war moom yaay cheikh uuf leen ñoom ñaan ñëpp wax leen dëgg ndax dëgg mooy njëkk mooy mujj waaye yow laal la damay wax est-ce que yow bis bu liy feeñee comme yow ni nga suuree fi nekk nii cheikh mm, ne cheikh daf la teg déception mais yow léegi si affaire bi feeñee est-ce que yow cheikh boobaa du denc ci yow parce que tamit li nga def dafa ñaaw tey jii jaxasa nga cheikh ak mareem sa yaay dugg ci ko euh, ci épisode 36 am am lu nga ay gan te ñoo ñëpp ci jeu wu maire bi la parce que ñooñu ba ñu jógee foofu dañoo dem ci maire bi nee na euh, Marème ñooñu ñëw nañ fi wax nañ ma li nga def te loolu yëpp say jeu la say tiktak jeeg nag du def noonu aw bul këram ñawal ñawal yoro sa pusa di ñaw defar ba mu baax fees sa place di def na nga daan def man su ma sañoon euh, nga dellu ci na nga meloon laal la waaw parce daal. aaway ah daal aaway ah daal doy nañ waa mais nag euh, benn côté tamit Marème na teey parce que mbirum goro yi dañoo garaaw mbirum goro garaaw na de parce que indi nañ foofu thème boo xamante ne bu am solo la ci société bi parce que man mii di waxee ak yow dund naa ko sama goro ma la doon bañ a teg bët waane détail yëpp du ma ci dugg lu ndaw rek laa ci wax dem na dema dem dema dem lu nekk mu def ko mu amul lu mu deful waa waane keroog ba mu feebaree ay mbokkam ni yooyu jalax ma ko ma tey di hôpitalu hôpital su fanaanee ci kaw ma fanaan ci suuf ah nekk ak moom ci lu baree bari ah, ba sama loxo yi la deewee te man rek la doon bañ gis nga xam ne àdduna ngi noonu indi ngeen nag foofu thème bu am solo ci mbirum ko rey ah, biram moom waxuma sax ay waxam moom ndax biram bandi la joor moom mooy loolu ndax tey ji Jalika kenn xamul fu muy wujjee ak affaire parce que Jalika mi ngay waajee mais ba tey dafa bëgg biram moom dafa bëgg sëyam mais ki mu taseer mooy saay-saay ndax ah, biram moom mooy loolu waa nag maa ngi di ñaanal yàlla ah mbirum la rek kenn ku nekk da ci wax li sa xalaat ah li ñuy dund la daal li ñuy dund ci suñu société bi la mais nag kenn ku nekk war nga see mën a jël njariñ xool la ci jëmala kanam parce pour yeeta la rek waana lu waa xew lu waa <laughs> lu xew TV yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal ah wax yal na leen yàlla defal jàmm dafa ko seen njaboot ci barki laay laa xëy la laa yéen ñëpp nekk leen ci jàmm